amis téléspectateurs de Dentale TV la Tigresse mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane bu Euh, yéen a ci seen émission taxaw seetlu nee naa leen chaque semaine rek dañuy daal di taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi émission bi nag du ma ci weet benn yoon dama ciy feggoog sama xarit sama frère di Malcom moom mooy nekk sama chroniqueur saa su nekk noonu rek laay jaaree di nuyu suñu sponsor leader agence immobilier Touba Medinatul Njurul di def vente de terrain terrassement location de voiture nekk fële nga xamante ne moom moo di ca Kër Massar ci wetu Auchan bi à face euh, crédit Kashba euh, ah. Malcom nuyu naa la ziar la kontaane la bu baax a baax. waaw Siste maa ngi lay bëggee di la ziar toi aussi di beral nuyoo mbokku internet yi di safoo di seetaan la Dentale TV rawatina émission bii di mag bi taxaw seetlu. ok nee naa taxaw seddu rek euh, saa su nekk ni lay demee chaque semaine rek dañuy daal di taxaw seddu tey nag ñu jël euh, ñaari point yoo xamante ne moom lañ fi fas yéene waxtaane muy la suppression des villes ak li nga xamante ne moom moo di coalition euh, politique entre Sonko ak Macky Sall Malcolm deux points yooyu la jël la suppression des villes dont Dakar Thiès Rufisque Pikine et donc naka nga gisee ñaari point yoo xamante ne war nañ ko waxtaanee fii rawatina Euh, ñi safo Dental TV ñu gën ci surtout yow mi nga xamantene chroniqueur nga ñaari point yooyu naka nga ko gisee. waaw encore une fois juste comme ni ma ko waxee ah, ay point yu ay ponk yu am am solo la loo xamante ni vraiment jaar nañu waxtaanee ko parce que boo xoolee dans le débat politique en général ce sont les politiciens même ñoo lay orienté seen débat parce que boo xoolee ce fameux la suppression des de certaines villes. Mm-hmm. Ah, suscité na benn débat ak benn polémique bu xaw a doy waar dans les débats télévisés ak si askan bi parce que am na ñoo xamante ne daal euh, dese nañ see ànd quoi mais loolu dinañ ko faram-fàccee ci biir émission bi ak euh, gis nañu tamit semaine bee ñu weesu Khalifa Sall benn rapprochement avec la partie Pastef les Patriotes Ousmane Sonko loolu yëpp daal jaad nañu la ñu ñu ñu ñu jàngataat euh, le paysage politique sénégalais ok la suppression des villes nak ki nga xamantene mom moom ministre Omar Gueye mom mo guen euh, le 13 passé dadi di def ben sortie dadi di wax ne dañuy daal di supprimer lu ci melne ville de Dakar Thiès. Tëngéej ak euh, Pikine ak Géejawaay mu mel na ñenn ci askan bi d'accorduñ loolu nga xamante ne ministre bi génn na wax ko ba mu jur coow euh, rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, parti opposant bi ku ci mel ne Barthélémy Diaz ku ci mel ne Sonko ak ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall ak ñenn ci population bi aussi tamit d'accorduñ ci li nga xamante ne ministre bi génn na wax ko ministre bi dafa Macky Sall moo làqu ci ginnaaw rek mais décision bi nga xamante ne ministre bi moom moo génn wax ko ci Macky Sall la ko jëlee kon naka nga gisee li nga xamantene mom modi la suppression des villes rawatina bu Dakar parce que yenen villes sax posé wut problème d'après la population sénégalaise Dakar biñu bëgg supprimer dafa mel dañu bëgg euh, num mu tudd nëbb ñi nga xamantene ñom ño nek ci parti opposition bi rawatina ki di Khalifa Sall mom mi fi nekkone euh, num mu tudd maire de Dakar. waaw juste euh, waaw comme ni nga waxe en fait amul amul jeu de cache-cache dans cette affaire je pense bien et bien. Si le ministre Oumagé se permet, d'évoquer évoquer ce sujet-là, une éventualité de supprimer certaines villes, notamment la ville de Dakar. Mhm. Donc, nous avons parce que les conclusions de, de l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons évoquer le Code euh, général des collectivités territoriales. mais juste que les ces conclusions là que acte 3 de la décentralisation depuis en 2013 amoon na conclusion yu mel non tu vois mais maintenant juste que le population bi wala ñen ci opposition bi tey jii nii bu ñu bàyyee ba tay ñu susciter ce débat encore tànn ñu benen ville mm-hmm. tànn ñu benen ville parce que tamit de quoi qu'on puisse dire mm-hmm. Dakar c'est c'est la capitale de ville bu mag la du ville bu ndaw tey jii nii amaana booy supprimer ñu ne xaar si yenen yeneen gox goxat wala yenen ville wala yenen mm-hmm. dëkk région mais tey jii nii subitement si un ministre se permet tey jii nii ñëw taxaw carrément carrément éventuellement ñom am nañ mbëbët supprimer une ville telle telle est le euh, la ville de Dakar. Mm-hmm. donc euh, loolu dafay xam ni tey jii débat bi daal bu ñu ko doon yóbbu euh, comme lu ma wax dafa am benn angle juridique. Mm-hmm. am angle politique mais yaakaar dans cette affaire là yaakaar naa c'est pas le débat juridique qui va primer mais je pense que. Mm-hmm. c'est le débat politique quand je parle de débat politique parce que tey jii nii boo xoolee. ñu ngi si en 2020 en 2020 bientôt 2021, bientôt encore 2022 et sûrement les élections locales mënul génn ci fourchette boobu notamment nag ba léegi ñun xamuñu wala Sénégal ce qui est encore grave dans un mm-hmm. euh, dans un pays boo xam te ne un pays de démocratie pays de droit boo xam te ne ay maire wala ay nit ñu mënuñu respecter maanaam le calendrier républicain mm-hmm. maanaam dëkk buy dox dafa am calendrier bu ñu un maire est élu pour un mandat de cinq ans mais instant Sénégal mën nañ tous les maires mm-hmm. maires yu nekk Sénégal yi instant yi maanaam dañuy maanaam bonus lañ nek di bonus lañ nek di usé. Mhm. manam askan bi danañ da leen jox ay xop carte ni leen togle la nañ leen collectivité wala dénk nañ leen ville pendant cinq ans. Mhm. mais jusqu'à présent avant même le coronavirus bi di ñëw ba léegi Macky Sall dafa peine dafa am problème. Mhm. pour organiser des élections locales pour permettre encore population bi mëna euh, décider à qui encore confier parce que ñen ci population bi nenañ buñu bayé ñu mu jall ki di son excellence Macky Sall donc élection locale euh, nommer li nga xamantene ñom ñoy tok fofu non wa parce que de toute façon parce que boo supprimer ville cela veut dire que ville bu amatul amatul maire. Mhm. ay président conseil départemental genre yooyu rek nga mën a teg foofu. Mhm. yoo c'est le président moy xol parce que tay jii nii loolu bu buñ démé ba dindi tay jii nii. Mhm. supprimer la euh, une une ville télé ville de Dakar ya ngi comprendre. man président Abou Macky Sall mën na ma xool ni Malcom. bon neex naa ko ni la mu ne Malcom kay mu préfère le président conseil départemental yaay gérer Dakar alors que pendant ce temps privilégié les Dakarois et Dakaroises pour ñu né ñoom bu doon sen sago. Mhm. x wala y moy nekk seen maire mo len di jité mhm. n'est-ce pas. Mhm. donc cette euh, dans cette affaire là je pense que y a le débat politique je pense que aussi il y a trop de calcul. parce que tey je vais revenir en arrière parce que nous, xolé ñu Sénégal ba légui ñu am problème respecter le calendrier républicain pour def ay élections locales. parce que ñom nguur gi wala le président Macky Sall xam na bu baax ce qu'il est en train de faire. Mhm. moom moom xëyul ni rek sànni ñu débat bi de. Mhm. moom xam na lu muy def parce que tey jii nii boo xoolee cette problème Dakar. Mhm. dafa mës a nekk problème ci gouvernement wu Macky Sall. Ah. parce que boo xoolee. rétrospective PS ba fi nekkee. ñoom doon nañ am ay maire yoo xam te ne. yoo ñoo gérer Dakar nga xam ne ci parti PS lañu bokk. Abdoulaye de PDS après euh, kii alternance Abdoulaye ba mu ñëwee au moins moom tamit doon na am na maire bon xamante c'est issu dans son euh, dans son parti que si le job Diop euh, Pape job n'est-ce pas job ah. job le maire n'est-ce pas je me juumul mhm. mais bon xoolee depuis 2012 Macky Sall mon nañ moi le seul président au Sénégal ba mu mhm. toogee ba léegi moo dafa am problème pour canaliser Dakar mhm. élection bu monte monte monte dem Dakar wa Dakar c'est l'opposition qui gagne en l'occurrence euh, Khalifa Sall donc t'as dit nii xam nga tamit Dakar dafa am benn électorat dafa am électorat bu am doole tey jii nii boo Dakar mon nañ ça dans une élection boo xoolee élection présidentielle au Sénégal dañu naan benn instant boo gagné Dakar ça amana monsieur mhm. si des ay moto la yeneen régions ay moto parce que euh, euh, taux de électorat bu nek Dakar dafa am doole. motax parfois ñu koy bo bo gisé l'acharnement bu ñu def Khalifa Sall bi ni yépp du dugal ko kasso Dakar bi maanaam lu mu nekk maire Dakar lu mu leen sonal la parce que bo xolé bañ démé élection élection élection locale en 2014 yaa ngi comprendre. Mhm. bul fàtte jamono yooyu noonu euh, Khalifa Sall bu ngi woon si Benno Bokk Yaakaar. Nous avons une alliance avec Macky Sall parce que en 2012 tous les partis là. IPS mm-hmm. AFP parti socialiste nous avons ont on gagne ensemble on gouverne ensemble mais une fois euh, une fois une élection locale nous mm-hmm. Macky a voulu garder Khalifa Sall dans son camp Khalifa Sall a dit non il préfère gain out. dem xoola boppam moom en tant que parti socialiste la boo xoolee si la parti socialiste commencé woon am am problème la fa fa yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko ay jan kii Tanor Dieng suñu nijaay jooju si la commencé woon am ay problème ak Khalifa Sall Khalifa Sall génn PS def parti boppam def taxawu dakaar mm-hmm. taxul ni mm-hmm. état bi dem nañ yóbbu Mimi Touré comme Dakar mais taxul ni xalifa euh, Khalifa Sall daf ko laminé mm-hmm. daf ko dóor gañu ko gañe euh, avec euh, maanaam victoire bu rëy quoi boo xoolee Macky Sall loolu méttoon na ko ba mu wàccee Mimi Touré. donc nga xam ne question Dakar bi dafa yàgg soxal gouvernement bi te ñoom ala kulli jàpp dal daal waruñu fi jóge en mhm. tant que en même temps teguñu fi kenn ko xam te au moins super APR lay bokk. Mhm. yaakaar naa mu mel ne ñenn ñi aussi tamit bu ñuy def analyse dafay mel ne suppression des villes bi genre rupture sociale la rek moom lañ wax ne euh, moom la ñu fiy teg maanaam boo déggee loolu comme créer des frontières ne li ville bi existé tout quoi. am na ci ñu bari ñoo xamante ne loolu lañ gëmloo kii bi te fekk tel n'est pas ville bi sa ville bi dafiy nekk mais tur bi walla en charge walla budgétairement ñu ngi ko doon. dañuy créer ay frontières ne maanaam. ville euh, ville existait tout le territoire parce que nekatul géographique et tout ça. Oui, effectivement sûrement non les demi jusque ville bi tamit bon ce sera contrôlé par l'État, comme le ma mhm. état bi koy parce que maintenant décret tout mon fait technique parce que les mhm. Macky Sall mooy qu'on ku et dans ce cas xam nga ne Macky Sall au membre de l'opposition opposition ne ko gérer ma Dakar. Mhm. n'est-ce pas day xool ba ci biir benn bokk yaakaar wala ci biir APR mu teg la fa te bu la fa tegee saa bu ko neexee tamit defoo lu mu wax wala

Euh, maanaam faculté euh, mun nañu ràññee kan lañu mën a dénk seen des destiné seen ville ba mun ko jëmbal euh, boo xam te ne si anam yu gën a rafet. Mm-hmm. mu mel ne ki nga xamante ne moom moo di Barthélémy Diaz aussi tamit dafa mel ne nee na Macky Sall dafa am problème ak ville de Dakar. parce que bu ne dafa bëgg ville de Dakar bëgg ko parce que daf doon xëccook ñoom ci bi ñuy defar place de l'Obélisque bi ak place de l'Indépendance projet yoo xamante ne ñoom ñoo ko doon kii mu koy xëccoo ak ñoom. donc 50 milliards yi nga xamantene mom moom budget biñu wara def fi ne dañ kay wax ne pour ville de Dakar la du pour ville de Dakar da koy séparer ak yenn ki xeyna lool lay gëm lo Sénégalais yi te fekk effectivement en tout cas ce sont des actes euh, yo xamantene Macky Sall de quoi qu'on puisse dire gis nañu actes yu mel non carrément en tout cas lu ñu mën a euh, APR wala président Macky Sall Dakar lu soxal la. Mhm. parce que combat bi commencé wul tay parce que même si xolé lool c'est je pense que c'était en 2000 su jumul en 2017 bon suma jumul parce que bo xolé Diène Farba Sarr mo nekkon jamono yooyu noonu ministre de euh, niveau urbain mo don xëccoo Khalifa Sall ay defar place de l'indépendance indépendance gens yi demee xam ay problème la tu vois ay mm-hmm. problème la parce que am na am tane compétence maire fa am fu mu tàmbali am fu mu jee compétence président aussi tamit dafa am fu mu tàmbali am fu mu jee mm-hmm. nekki nag tamit ay nit buñ ko falé tamit il faut nga bàyyi ko muy déroulé ay programme mm-hmm. mais de toute façon xam nañu lii nii yëpp fin politique kese la mais mais de volonté politique xam nga tey man dans cette histoire la mo mës a gën nga moy lan dañ koy def

y a Covid-19 qui est là mm-hmm. y a l'immigration clandestine qui est là mm-hmm. y a le chômage qui est là hein. mm-hmm. le Sénégal peut-être parmi les 25 pays les plus pauvres hein. parmi les pays les plus endettés l'essentiel doit être ailleurs mais pas des questions politiques pour remarque Sénégal Nous préparer un éventuel troisième mandat loolu kese la. Mhm. parce que tey jii yow nit yow boo nee yaa ngi sa deux sa sa deuxième et second xaw ma deuxième et wala second et dernier mandat. maanaam yaa ngi seen mandat bu ñaareelu mandat ak sa dernier mandat. Mm-hmm, mm-hmm. est-ce que tey jii nii yow di nga fi nekk def ay calcul politique. Mm-hmm. sama nit kii dafa war a toog fii wala kii dafa war a toog fii doo fi nekk. mais tey jii nii le fait que moom mu bëgg supprimer ville yooyu mu aaki moo ko. surtout la ville de Dakar parce que aussi tam loolu moom moo posé problème population sénégalaise parce que bu ñu fàtte ne euh, ville de Dakar moom moo nekk ponte euh, porte d'entrée Afrique. Mm. ville de Dakar moom mooy du Sénégal ville de Dakar aussi tamit nekkoon na fi capitale ay a OF. Donc, ñenn ci Sénégalais yi nee ville de Dakar ne peut pas, ne doit pas être disparaître comme ça. effectivement je suis d'avis avec eux je suis déjà je suis mm-hmm. d'avis avec eux parce que lii ni lii bu ñu ko defee maanaam lii buñ lu ñu bëgg na projet la xaw loi la lii bu ñu ko defee xam nga mooy lan mm-hmm. mooy Sénégal on waratuñu toog fii naan nous sommes une république mm-hmm. dañoo nañu royaume lañu maanaam jël nañu Macky Sall ne ko yow yaay lépp yaay le président yaay gérer Dakar capitale bi tu fais ce que tu veux loolu mooy maanaam royaume dynastie mhm. xawma ma bob lolou lañu la ñu naan mhm. dynastie Faye Sall boobu mooy Macky Sall yow bour nga léegi nekkatuñu dangereux et c'est très dangereux quand même. Mhm. mu melne ñi nga xamante ñom ñoo di agents municipaux yi nekk euh, fële nga xamante ñom ñoo di ci ville de Dakar ñom d'accorduñ ci dañoo opposé wu ci li nga xamante ne mo di suppression bi nga xamante ne bëgg nañ ko yóbbu ville de Dakar parce que nenañ ville de Dakar mom mo mak Sénégal parce que actuellement mi ngi tollu ci 133 ans kon donc ville de Dakar mënut a disparaître non. ah effectivement en tout cas loolu tamit c'est évident parce que bon xam nga ñoom ay conseils municipaux lañu. Mhm. kon qu'est-ce que cela veut dire ay salariés lañ ay fonctionnaires lañ. tey jii moo leen gënal seen bakkan bi. bañuñu ci dara bu jaree ñu wàcc ci. mbedd mi aussi tam dinañ ko wàcc tey bul fàtte ville de Dakar ne ci ci mairie bi lañ nekk. Mhm. nekk ay fonctionnaires. di fayeeku am benn xale bu am am ay femme ménage. Mhm. di fayeeku am ay gardiens di fayeeku xam nga loolu yëpp. genre wu institution yoy non au moins na réduire un peu le chômage mais yoy boko supprimer légui non ñoñu lolu boko ko supprimer ñooñu foo leen yóbbu. Mhm. da leen di utal feneen liggéey wala mhm. encore tamit. day augmenter la chômage maanaam ça peut parce que instant ville de Dakar rek mu ngi en au moins mun nañ ko xeyma au moins amna plus de 300 agents. plus de 300 agents yo xam ñu ngi fay liggéey. ci mhm. plus de 300 yo mën na nek ay fonctionnaire comme mën na nek ay ay ay ñoo xam te ay femmes de ménage mën na nek ay. des hommes de sécurité. yoy yëpp tay ji ni ay soutien de famille lañ quoi mo len eumbe ëmb di leen fay mhm. kon day di ni day jii nii Macky Sall mu yaakaar problème bi. Mhm. ailleurs la. Mhm. il faut aller vers l'essentiel essentiel. nga mooy problème Sénégal mooy lan. mo ñu fa lañ ko doon xaar wala ministre ñuy wax ñi fa lañ leen di xaar. ñu def ay résultats. Sénégal jëlee en 2012 ba ñu toogee fekk nañ temps de chômage réduire nañ ko à temps. de pourcentage. fekk nañu euh cla immigration clandestine amna

avec cette euh, cette euh, avec madame avec cette envergure. c'est mhm. une politique bi lu mu joxe tay jii ni mhm. Aliou Sall Aliou Sall mhm. élection législative locale maanaam sansam dafa limité. Mhm. pour mu wat mairie Guédiawaye du yomb. Mhm. maanaam sansam dañ koy c'est limité. Mhm. tey jii Idrissa Seck mom nek Thiès. tey jii la fekk mu top Macky Sall. xam nañu bu ñu demee élection locale. tey jii nii am na ay Thiessois yu bëri yo xam te dañ ko méré kon ñom dañoo calculer baax fa fuñ xamné xam fi buñ fa démé ñu parce que d'après Alioune Sall mom il est d'accord ci décision bi nga xamante jël nañ ko. parce que néna ñi nga xamné ñom ño nek euh, maire parce que maire de Dakar euh, musul euh, poser menace ci nek président nous pose une menace qui régime parce que maire de Dakar le président de la république buñ ko le cadre de Diop président de euh, Diop ak euh, ki nga Khalifa Ababakar Sall kon donc le menace pour régime kon donc gisul ne <laughs> waruñ bañ quoi parce que hmm. <laughs> maire de Dakar musta président de la République du Sénégal mm-hmm. maire de Guédiawaye peut-être il est libre de dire ça mais son mm-hmm. grand frère monsieur le président mm-hmm. Macky Sall il sait il sait qui est Khalifa Sall parce que tey jii bu le maire de Dakar amul influent wala amul capacité gérer ñoom ñoo tax ñoom ñoo xam lu tax ñu dugal Khalifa Sall ba élection jàll ñu soogaade ko génne mhm. xam nañ ndax menace la wala du menace mhm. ñoom ñoo xam lu tax te ñu bëgg tëb tëb tëb tëb tëb rek ne dañuy supprimer ville de Dakar xam nañ menace bi fan la mhm. kon loolu waxu politicien la rek mais man je pense que la réalité des faits sénégalais yëpp xam nañ lan la ko tax ñun sénégalais yëpp boo tàllal mi ko dafa mi ko trottoir nga ne leen ville yi dañ koy supprimer mhm. xoolal dañ mhm. da mhm. koy daal di taxañ noonu rek daal dem ci li nga xamante ne moom moo di coalition politique bi nga xamante ne entre Khalifa Sall ak euh, Sonko naka nga gisee coalition boobu Malcolm. ah mais bon juste que parce que xam nga ni euh, remaniement ministériel bi ministériel bi le président Macky Sall. Mhm. jot nako def. Mhm. ku ci mel ne Seck ay euh, na mhm. bon. de toute façon n'y a dem Macky Sall. boba il faut que opposition radicale que fi jàmbaarloo ñom parce que xam nañ tamit da démocratie lool da fay am une opposition qui s'oppose et une un gouvernement qui gouverne mhm. non la quoi et je pense que tay jii ni bon xam nga Khalifa Sall même électoralement wala euh, moom dafa am problème manam pour samp nëndam pour mhm. élection maire wala peut-être wala présidentielle parce que déjà mom dañ ko gracier mais defaguñ ko amnistie mais de toute façon mhm am na influence. Ah, parce que instant bi ñom ñaari leader yoy ñom ñofi gëna nek voilà am na euh, am na influence waaw am na influence. Mm-hmm. parce que PDS mom kenn déggatu ko fenn. waaw am PDS mom déjà mom moy lool. Mm-hmm. kon tay jii ni Khalifa Sall yaakaar na am na influence même si que mom du euh nañ ko wax dafa am ay problème avec yoon. ba mm-hmm. il faut ñu gracier ko. pour mëna nek nekk projet présidentiel mais de toute façon. tay di ni bu allié ak Sonko bon de quoi qu'on puisse dire gars yi dañoo jàpp ni Sonko Casamance que c'est mais je mhm. pense que tamit Sonko peut peser très lourd à Dakar. Mhm. tey jii imaginez ben coalition bu garaaw boo xam Khalifa Sall Barthélémy Dias Sonko ñoom seen yooyu def ben coalition Dakar parce que l'union, ñoom kese parce que ki nga xamante ne moom noo di rejoindre na à ak ki nga xamante ne moom moo di Alassane Sall aussi tamit ak euh, ki nga xamante ne moom moo di Lamine kii Mamadou Lamine Diallo aussi tamit ñëw rejoindre leen Macky bàyyi na nelaw ñooñu kese bu ñu say xëyuñu xëyuñu si gouvernement bi loolu je suis désolé ñooñu ñooñu nga lim noonu bu ñu benn bloc. Mhm. kay xëy na kay Macky kay Macky kay lan lan leen di ëpp kay. Mhm. maanaam épreuve de force épreuve de force am na police am na gendarmerie mhm. genre yooyu mais maanaam. popularité wala influence noonu noonu wax dëgg fa la ñoom bu ñu defee benn say. maanaam mun nañ ni am nañ nag. au Sénégal maintenant. parce que d'après Barth mon moo def euh, nu tudd alliance voilà pour faire face au président Macky Sall. en tout cas c'est bien c'est quelque chose qui est très bien en tout cas loolu là, la parce que démocratie pour moi, il faut que. Mhm. ñee fait, ni un nekk gauche ñee nekk droite. ñëpp mhm. mënuñu nekk Macky Sall ce qu'il veut. Mhm. Mon lu mu bëgg def mënul nekk. mënul je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression loolu mënul nekk. maanaam loolu bu amee maanaam moom du mës a parce que tey jii opposition bi yëpp buy demee dugg mouvement présidentiel. Comment vous critiquez mhm. et je pense que quelqu'un qui te critique il les performer. effectivement yow ce que tu es en train de faire là BRT baaxul terre le terre a mis le a mis le Sénégal à terre. Mhm. Ah? tey jii nii yor na taxaw war na yow taxaw tey jii nii yow nga xoolaat sa feuille de route nga xam ne carrément. Mhm. peut-être lu ma Barthélémy Dias wax. Mhm. c'est politique mais am na njëriñ lu ma Sonko lu ma Mamadou Lamine Diallo. Mhm, lu ma Abdoul Mbaye wax. Alassane Thierno Alassane Sall. alors que ñoom ce sont des patriotes. ñëpp xam nañ seen combat fii au Sénégal ce sont des combattants. je c'est ça. dafa mel ne li ñu cëraloon ci waxtu mi ngi xuus jeex kon donc euh, lan ngay tàggatoo euh, temps bi moom moo ñu xojan euh, mais Saint-Louis <laughs> di Mansour Faye nee na day daal di jël euh, num mu Richard Le de Gaulle daal di koy tuddee ki nga xamante mom modi son excellence monsieur Macky Sall <laughs> benn parenthèse ndaw rek naka nga gisé lolu. heureusement merci ba nga ba nga parce que de toute façon man je me réfère au Saint-Louisien parce que je suis de Saint-Louis. Mm-hmm. man yaakaar naa am naa plein droit pour wax loolu parce que je suis né à Saint-Louis. je suis mm-hmm. grandi à Saint-Louis. donc man instant yi wax damay wax en tant que le Saint-Louisien. Manam mm-hmm. ñun dañu bëgg wax Mansour Faye mom instant ni Saint-Louis amna na yeneen problème Pikine ba xamna ko ndox baa fa taxaw ba tey. Mhm. mel course insécurité ak yene yene Ndiolofène gox mbaaj bël ba ba léegi gars les Saint-Louisiens sont fatigués. Mhm. Gendarien, dañu il il peine pour avoir quelque chose dans la mer. Mhm. problème bi c'est là-bas. mais c'est pas djel ben avenue Charles de Gaulle naa da koy rebaptiser sa goro par exemple ñun héros ay mhm. suñu suñu tonton wala suñu su même Diouf ak Amata beaucoup mhm. beaucoup. parce que ah. président Macky a beaucoup fait pour saint qu'est-ce qu'il a fait à Saint-Louis je suis très je suis très à l'aise à dire qu'est-ce qu'il a ñun Macky Sall moo ñu wara a ñuko ñun wa Saint-Louis ñun ñoko mhm. may soxna. ñun ñoko may soxna ñun ñoko ko lépp ñoko may soxna waaw. mais mom man en tant que Saint-Louis j'ai grandi là-bas j'ai fait mes études là-bas mo mënu mëne li carrément Macky Sall a fait ça à Saint-Louis. Mhm. amul amul loolu bu ko waxee daa bëgg wax waxu politicien bu mais ñun les jeunes yi collectif bu taxaw pour dire non man j'en fais partie j'encourage ces jeunes là et ces activistes là manam mhm. Saint-Louis ñun ñu ay repères mhm. ay repères yo xam te mhm. ay magu Nous la les xam qui ne dañu Nous ngir Saint-Louis ngir saint c'est un monument kooku amul lu mu defarul Saint-Louis. Mhm. doo ne Ndar te doo waxoo Golbert Diagne. kooku mhm. kooku mun na fa ña est kooku am na fa tëli sax. Mhm. gawuma wala bu amee xamaguma. parce que ñu ngi doon Macky Sall. ok Malcolm looy tàggatoo. <laughs> ah di jaajëfal mbokk internet yi doon safoo di seetaan émission bu mag bi di leen wax aussi tamit lu fi dëng rek ngeen jàpp yu ñuul la lu fi baax ñu jàpp ni. ñoo ko bokk aussi tamit di jaajëfal ñëpp di leen wax wooy leen di seetaan programme Dentale TV di leen jox daje ci beneen euh, numéro taxaw seetlu artiste la tigresse. ok dama koy jaajëfal bu baax a baax kooku moom nekkoon Malcom sama chroniqueur nee naa leen ni day demee saa su nekk ci taxaw seetlu tey nag deux points yi ñu jëloon muy la suppression des ville de Dakar ak li nga xamante ne moom moo ci euh, coalition politique entre xalifa Sall ak ki nga xamante ne moom moo ci Ousmane Sonko ñu di leen jox dig daje rek ba euh, ci caméra bi. Amzo donc jaajëf internet